incha allah ñu war a jël tey ay soixante ci suratul an'am wa huwa alladi yatawaffakum bi layl alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi yeesal sant suñu borom jalla wa ala ci ñu may tawfiq dañu dajewaat ci néegam bu tedd bi ci weeru màgg wi di shahru ramadan di jëm ci bisab yu mujj mu wërsëgal lu ñu tiim ak téeréem di ko jàng loolu day ngëneel yu bëri yum dajale la jalla wa ala nim ñi ci dëppalee yal na yàlla nangul ñu boolem ña nga xam ne it ñoo koy déglu wala seetaan fu mën a nekk ci kaw suuf yal nañu yàlla boole ñoom ci ngërëmam ak aafiyam ñu dox suñu diggante ak ñoom it di leen ko jottali yal na yàlla boole leen di ñuy jottali kàddu borom bi te fay leen kon incha allah ñu nekk nii suñu ñaari fukkeelu fan ak juróom-benn yàlla nga xam ne mooy chahru ramadan suñu guddik gii di ñëw te niñ ko doon waxe bii gén nañu xam ne guddi mooy fu jant bi sowe bokk na ci yaakaar yi ëpp yaakaar ci ne moom mooy leylatul qadr ba lenn ci ay saxaaba sax daan ca dogu ne moom mooy guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar wallahu subhanahu wa taala aalam kon incha allah monsieur Ousmane pare mu jëlal gi suñu bind bu jëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيبرمني وهو الذي يتوفاكم بالليل يلا داي موي كيغا خمني moo leen di faat ca guddi ay moo leen di nelawal wa yaalamu ma jaraxtum binnahaar xam na it la ngeen di faggu te bëccëg ba summa yabasukum fiihi gannaaw ba ca la leen di génne ci seen nelaw ya mu dekkal leen rek li yuqda li yuqda ajalun musamma ngir ñu matal dig boo xam ne bu ñu tudd la ba pare summa ilayhi marji'ukum gannaaw ba ci moom mooy seen delluwaay summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun gannaaw ba dana leen xabaare lépp lu ngeen nekkoon di ko jëfe wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi mooy ki nga xam ne mooy aji not ji ci kaw jaamam yépp wa yursilu alaykum xafaza mooy yónni ci yéen ay wattukat ay ay malaaka xatta ida jaa ahadakum almawt ba baa muy dëkkal kenn ci yéen ak dee tawaffathu rusuluna noonu la koy faate ay raye suñu yonent wa hum laa yufarrituun te ñoom day duñ gàttal yu mukk suma ruddoo ila allahi mawlaahum alxaq gannaaw bu ñu delloo leen ca yàlla seen féeteg dëgg alaa lahu alxukm te waay li am kay mooy moom dong la ñeel atte ya wa huwa asrau asraul xaasibin te mooy ka gën a gaaw ci noo xam ne te moom lay réglé ay jaamam ëllëg yawmal qiyaama qul qul man yunajjiikum min zulumaatil barri wal bahri laaj leen moom mu ni yéen ana kenn moo leen di musal ci lënd mi jéeri ak lënd mi géej gi tad'uunahu tadarruan wa xufiya ngeen di ko woo ànd ak toroxlu ànd ak nëbbu woote googee la in anjaana min haasi naan ay waay bu ñu musalee ci mbir mii tey day la nakunanna min ash-shakirin kon day daan bokk te ñi nga xam ne dañuy sant qul illahu yunajjiikum minha wa min kulli karb neen yàlla day moo leen tey musal moo leen di musal ci yëpp tiis summa antum tushrikuun waaye gannaaw ba ngeen nekk di ko bokkaale ni ngi noonu bokk suñu borom jalla wa ala moo ñu bind te bind wu ñu rek sànni ñu bal mi ngi ànd ak ñun dañuy wëlbati nu mu ko neexee étape ci kaw étape bokk na ci étape yooyu mooy fi mu ñuy jaarale ci suñu dund doomu aadama nga am juróomi jaar-jaar ci sa dund jaar-jaar bu njëkk ba fa nga nekk sa biiru yaay loolee nekkoon ak kumpa boo xam ne dund nga fa ak sa sa ruux lu jege ay juróomi weer wala lu gëm ba nga amee ñeenti weer si biiru yaay la la suñu borom indi ak ruux ngay dund ko di ngi noonu dem naa bëgg dund ci kaw suuf di dund mooy ni ñuy dunde nii yaa ngi am yéeg yéeg di xam lii xew ñetteelu dund bi mooy fi ngay nelawe mbokk fi ngay nelawe suñu borom day jël sa ruux waaye jël la boo xam ne du jël buy tekkali ko ak jëmmit looloo tax ruux googee suñu borom yàlla man koo won ay mbir yu jéggi dayo da ngay gis nit koo xam ne ci nelaw gént na gis koo xam ne ba mu dee kenn xamul kañ la woon te mooy li paas da nga gis koo xam ne ci nelaw gént na mbir moo xam ne après da koy gis moo tax alxuraan kenn xamul ñaata gént la ci yàlla wax masalan suratu yusuf rek ñeenti gént yàlla nettali na nettali na ko fa loo xam ne ñoom ci seeni nelaw dañ ko gis après lay doo ko am loolu nag ci yàlla la yàlla lay jógee su dee gént nga gént ko baax la donte ne yàlla nim ñu nattoo nattoo ko seytaane yi seytaane mën na dajeeg sa ruux googee wan ko ay mbir yu ñàng yu lay tiisal yu lay metti waaye yonent bi alayhi salaam nee na boo xëyee ëppal sa côté day sa côté càmmoñ ñetti yoon nee na yàlla yal na nga musal ci ayu seytaan musal ma ci ayu lii nga xam ne dama koo gént bu dee da ngay gént nag lu rafet la lu baax la boo ko nettali lu dul koo xam ne jàpp nga ne danga koo bëgg bu dee ñeenteelu étape bi mooy bis boo dee nag dugg biir bàmmeel su boobaa roox gi mi ngi am ak jëmm ji rapport bu bokkul ak ba mu am Muhammad moom bi mu nekk ci kaw suuf suñu borom yàlla di la xéewal sa bàmmeel wala suñu borom yàlla di la bëggal sa bàmmeel am na juróomeelu étape bi nag ma yomul aaxir nga xam ne mooy lu mu jub yàlla day boolewaat ruux gi ak jëmm gi boole goo xam ne teq li koo dootu fa amati abadan abadan allaaxira amul nelaw waa àjjana du ñu nelaw waa sawra du ñu nelaw allaaxira amul dee waa àjjana du ñu dee waa sawra du ñu dee am naa nag suñu ñetteelu étape bi la ci borom bi di wax maa leen di nelawal ci guddi may kàttan goo xam ne moo koy def di xéewal goo xam ne nag ku ko ñàkk rek a ko xam waaye xéewalu nelaw ñu bëri jàpp nañ ne du xéewal sax mustu ko sax bàyyi xel waaye wallahi ñu dajale goo xam ne nii du nelaw daanaka lu ko métti ñu noonu am na benn oustaz bu ñu siiw ci daaw bi yéen ñëpp xam ngeen ñu bëri ci yéen xam nañ ko problème am mooy loolu bu jub réew fu ñu yóbbu nañ ko fa ñu ngi noonu daje naa fii ci jàkkati koo xam ne saalum la jógee ay weer mënul nelaw ñu boo ko gisee demee na ko bind rek parce que borom mu ne jaala nawmakum subaata nelaw yi moo ko def mu leen di dalal di leen équilibré ñu ngi noonu maa leen di faat ci guddi ngeen di nelaw muy xéewal loolu mooy la nga xamante ni it bëccëg maa leen tey njëkkal looloo tax yonent yàlla ma xamoon boroomam day moom bokk na lu mu daan wax te yàlla maa ngi tëdd de di jël sa yëpp dina ko dégg in xabatta ruuxi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bi ma tahfaz bihi ibadaka salihin sama ruux gi yàlla boo ko jëlee mu jaare fa nga xam ne ñu bëri ci seen nelaw lañuy fa la ñuy jaare fa moo tax mu koy wax suratu naxal nag koy dara jàng insha allah mi ngi noonu amma su ma saan yeewu sallallahu alayhi wa sallam lu mu daan wax alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amaatana wa ilayhi nushur ñi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu dekkal gannaaw ba mu ñu faatee ci suñuy nelaw te ci moom la ñuy dajal ak yawmal qiyaama borom bi mu ne maa leen génne ca bëccëg mi ngi noonu ngiree matal ab dig ay yow sëñ Thiam xamal ne bala yàlla di bind ci sa biiru yaay jàppoon ne ne kaw suuf war nga fi am masalan cinquante mille bëccëg ak cinquante et un mille guddi loolee ñi ngi la koy wàññil bëccëg bu dem paase na dootu ñëwati guddi gu dem paase na dootu ñëwati mi ngi noonu innama nauddu lahum adda ñi ngi lay compter ak compter guddi ba jeexee jeex gannaaw ba rek ngeen dellu ci seen boroom ñëpp doomu aadama nit ak jëne yëpp su ngeen ñëwee lépp lu ngeen doon def ci guddi ak ci bëccëg ma nekk di leen te loolu mbokk di jar a waajal yal nañu yàlla suturaal nekk bi alei salaam nee na jaam bi su ko yàlla di suturaal dana ko woo wax ko ay njombe mi mu defoon yëpp ba moom mu jàpp ne man sawara rek laa jëm si fii mu ne ko nag dama laa suturaal ci àdduna baal naa la mi ngi noonu yóbbu leen ko àjjana li war a yëg ne mbokk bàkkaar mënta ñàkk waaye moytul bàkkaar buy biral rek bi alei salaam mu ne yàlla dana baal sama xeet yëpp suuf ñuy feeñal seeni bàkkaar donc ne bokk nañu feeñal bàkkaar dem ko ci sutura ba pare wëlbatu ko di ko nekk amaa bu dee ab saay saayi moom yàlla ci kanamu nit ak jinneer koy àtte xabaaru ko monom gépp mi ngi noonu ñëpp bokk gërëm mbokk kooku mooy suñu borom nga xam ne moo ñu moom ñun ñëpp gaa yi puti nag nuñ ko waxee mboolem ñi jiite àdduna bi ñëpp ci bokk yëpp ku ci nekk suñu borom chaque vingt quatre heures dañ la téye ay dëgër nelawal la gis ngeen borom boobu nag mu ne moo am kattan ci yónni mbugal ñu nga naan wala boog mooy ki nga xam ne mooy ki not ci kaw ay jaamam alqaahir fawqa ibaadi mooy fawqa ibaadi ci jëmmam ja loolu la jullit war a gëm mbokk yàlla subhanahu wa taala ma bind asamaan ak suuf def ay mbindaafonam def ci asamaan ak suuf moom jëmmam ja ma nga ca kaw arasham ba loolu la am jullit war a gëm waaye it alqaahir mooy ki not lépp amul lenn lu mu bëgg a dogal benn jaam di tee mu am amul benn jàmm bu mën a def lenn loo xam ne ni néew la ka neex ak lam gërëm nag daa bokkul waa jee gàddu jeesim dem daj ci kër jaam ko rendi ko lam def loolee sunu borom yàlla subhanahu wa taala ah moo ko dogal waaye nag neexu ko ay jëf la sabab la bu neexul waaye bu neexul yàlla du am loolu la ab jullit war a gëm huwa alqaadir moo not buur yi moo not agresseur yi moo not ku baax moo not ku bon barab boobu nag nee na maa yónni ci yéen ñu leen di wattu naam bokk doomu aadama da nga naan jànjan di nelaw kan moo lay wattu ba sa nopp yi dara dugg ci sa bakkan yi dara dugg ci doomu aadama da ngay gis ne yaa ngi génn di dem te jii ab accident mën a am di gis koo xam ne nii dañ ne dafa dugg ci benn oto parce accident bi gën a garaaw bu ne moo am ci Sénégal fii quarante mort da ngay gis ab jeune bu teewoon mi ngi mi ngi naan ñëw naan day seet ay beesam lay seet accident ñaari car daje wéll quarante mort di gis koo xam ne mi ngi jóg dara rajo dugg bokk lu waral loolu te oto bi yow boo gisoon oto bi ñu ne leen nit génn na ci da ngay wér waaye loolu la muy alxafasa yàlla la boole ay malaaka yoo xam ne dara du la dal illa bi isnillah léegi benn caabi di jéggi tali bi benn oto jóge fële mais ñi ko invité ñëpp koy jàpp seen génn bi subhanallah tuuti mu jaar ci kaw lu waral loolu mooy alxafasa yàlla mooy windi ay malaaka yoo xam ne dara lu neexul yàlla dañuy gis na du la dal borom boobu nag moo tax jullit di war di yëkku ci moom pour mën a toog heure booy génn sa kër tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah heure booy nelaw dénk sa bopp yàlla aslamtu nafsi ilayka wajjahtu wajhi ilayka wajjahtu zahri ilayka rahmatan wa rahmata ila jamono yonent bi alayhi salaam da doon dénk boroomam fu mu mën a toog borom bi nag nee na ñooñu lay wattu nag bis bu dee ñëwee nag ñu faat la mënoo nekk ci avion bi explosé dara dal la lu dul neex yàlla waaye it mënoo nekk ci château bu ñu protégé mucc ci day abadan foo mën a nekk malaaka yi dañu la xool ci te leen jiite mooy malakul mawut ak ña nga xam ne ñooy ña ngi àndal bu ko defee malaaka yi daañu la jëli faat la te malaaka yi duñ gàttal lu mukk duñ la jël mukk ci sa waxtu dee jotul sa waxtu jee heure bu jëlee fokk nga dee mi ngi noonu duñ ci yokk minute duñ ci wàññi minute waxtu bi leen yàlla wax moom da ngay dee foofu la mën a fekk da ngay dee mi ngi noonu loolu farretuun loolu moo tax ba duñ jaawale gis bi te gis ñaar ñoo xam ne ñoo dugg ci benn oto bokk ndoo toog ci ndeyjoor ci càmmoñ oto bi dugg ci camion ba jeex kii dee sur le coup di jóg taxaw dara dugg gis ngeen loolu farretuun borom boobu subhanahu wa taala nag ni gannaaw ba dañ leen di delloo te yàlla may seen féete dëgg mbokk ku dee ci yàlla dañ koy delloo am déet inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suuf waa Sénégal Sénégal moom ku dee ñu naaw yàlla na ko seen diw teew yàlla na ko seen diw teew mbokk mu wax seen diw la mu nekk ndax xam ko seen diw moom boo xam ne lu ko doy seen yàlla na ko seen diw teew mbokk loolu suñuy wax de mi ngi noonu am na loo xam ne nii kon man maa ngi ne xam ngeen jëf nan jëwul balaa juddoo di ngeen juddoo ko ak Kébémer gis ngeen mooy centre Khadria ci Sénégal am na benn benn wax sëriñ bu mag ñëw fa mu ne seen benn sëriñ ci Sénégal moom it doom ji dafa am benn doom benn doom rek nee na doom ji faam nee na muy jooy rek jaaxle lool ba mujj nee na mu xëy suba rek ànd ak kanam bu leer waaye dafa aw si bi tey day kanam bi dàlleer mu ne waaw sama doom ji ma jaaxle woon dama yàlla daf ma yóbbu ma dem barzak ma xool fi mbooloo mi gis ma ko mu ne ana sama doom ñu ne ma ma nga ca barzak bu sëñ diw sëñ bi Sénégal dag sama xel daan na dee bokk loolu suñuy wax la de barzak bu sëñ ma sàmba barzak bu sëñ ma dem yàlla na ko cheikh diw teew yàlla na ko sëñ diw teew su marudu ilallahi mawlahumul haq képp ku dee ci yàlla nga jëm képp ku dee ci yàlla nga jëm am na xadis bu gudd bi xadisu suur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenti dina bi doomu aadama yi fu ñuy sukuraate ba malakul mawt jël roox gi ba ñooñu ba àndaloon këf ko yóbbu ko kaw asamaan bu dee ko baax la ñu bir ko buntu asamaan yi ba mu yegg fa neex yàlla mu nga delloo leen ko ci kaw suuf ba malaaka yi ñëw laaj ko ba yàlla yaatalal ko ba meeram mu nekk rawdatu min rawdatil janna amma bu dee ab saay-saay fa mu yéegi def kaw asamaan ñu tëjëb ko buntu asamaan yi yàlla ne nañ ko delloo rooxam yóbbu ko ci bàmmeeram dugg mbugal ko la sob yàlla lii mooy dëgg de ku la wax leneen lu dul lii da lay nax mi ngi naan ku la wax leneen lu dul lii da lay nax sama bokk ba El Hadj Fadil Gueye nettali na ma loo xam ne lii am théâtre sax laa ko teg waaye moom nee na xam na koo xam ne baayam da koo dal baay bi daa nekk ci ab accident ñu jël ko yóbbu ko yóbbu ko hôpital bi mu nee xefet yeewu médecin yi wër ko ak seen blouse blanche yi da ko ah góor gi yow noo tudd mu geesu geesu wax la sëñ diw ñu doon ñu doon koy sëñ diw man ah dañ ne bu ma dee sëñ diw dana ma teel wax la sëñ diw yaa ngi suuf góor gi nee ko yaa ko yow ko daal waaw maanaam bu ñu xaar mbokk nañu xam ne su ma doon doo dañ leen di dellu ila ila allah mooy mawla sunu xam borom boobu nag mbokk nañu xam ne ala lahul xukm mbokk yàlla rek di àtte yàlla waaye jullit ñi delloo si leen seen xel yàlla lahul xukm moom rek mooy àtte ci jaamam na bëggal leen kii ñu bëggal mooy àtte ci jaamam tere leen kii ñu teral moo moom àjjana moo moom sawara moo moom dogal yëpp ala lahul xukm allah xëy mooy àtte ay jaamam Sénégal am nañ ah cour d'appel cour de cassation cour suprême cour cour am ngeen cinquante mille cour waaye dernier cour mu nga ci courub yàlla yàlla mooy atte ay jaamam mooy dajale président yi généraux yi yëpp moo leen di dajale atte leen loolu xëpp te yëpp moo gaaw ñu koy def loolu man xiyaama la fay nar a daje ci ay mille milliards ci ay doomu aadama atte leen ak atte kenn ci ay jaamam ñoo yem ci moom asraul xaasibin borom boobu nag ne yéen waaw yéen rawatina mbokk yi yi firi arab yi yéen daway xam ngeen ni su ngeen nemee ba tiis dal leen ci biir géej ja lëndëm yi tar ngeen jaxasoo wala ci biir géej ja ngeen di waaj a suux yàlla kese ngeen di woo toroxlu ca woote ga nëbbu woote ga sa digganteeg sa borom xam ne yàlla rek ngay dégg waaw léegi ay yàlla soo ñu mujjalee day daan bokk di ñu lay sant ay dootuñu la bokkaale mukk waaw léegi xam leen ne yàlla mi leen musal ca jiiri ja daan ca biir géej gi bépp tiis bu mën a amit moo leen ci musal wala tax na ngeen koy bokkaale te loolu bokk liñ ko waxoon fii rek mooy yéefir yi gëdd ya bokk na luñ daan bokkaale yàlla ci jamonoy xéewal amaa bi mbir yi ne këtt na jonn lépp dañ koy delloo yàlla gis ngeen amaa ñun da ngay gis ñu yore nattu jamono yi tiis ñu ngi woo keneen ku dul yàlla jamono yi xéewal ñu ngi woo keneen ku dul yàlla waaye mbokk yàlla dong mooy dogal lu ko neex ay jaamam jaam bi nga xam ne day xellu ci moom rek la war a dellu rawatina nag yonent bi aleyhi salaam daana ñu jàngal kenn ceen bi nekkee ci tiis nee na daawatu zin noonu yonent yàlla ka nekkoon te kii ko Yunus yonent yàlla Yunus nee na lam nga xool ca tiisam wa amul kuy nekk ci tiis wax ko dul yàlla dana ko xettali laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin bu nekk ci ay tiis ak jàqare bari di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ay yàlla kenn yow yowul ñu koy jaamu ku dul yow sell ñeel na la man bokkoon naa ci ñëppoon rek mu ne antum tushriku ba ñu nekk wàllu sàmm ne ki nekk ci tiis ne allah allah allahu rabbi laa ushriku bihi shay'an yàlla day mooy sama borom bokkaale wu ma ko dara nee na loolu sax sabab la yàlla tegg say tiis yal na yàlla teggal ñu suñuy tiis adduna ak alaxira
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
barakallahu fikum suñu borom mu ni qul huwa alqadir moom day mooy borom am kattanu ala an yabasa alaykum azaban min fawqihim ci mu daadi yónni mbugal ci seen kaw yónni ci yéen mbugal mu bawoo ci seen kaw aw min taxti arjulikum wala mu jóge ci seen suufi dëggu tànk yi aw yalbisakum shia wala mu boole ngeen jaxase leen ngeen nekk ay ñu tekkali ko kuréel ci taw kuréel contre kuréel wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd mu mosal lenn ci yéen ayu la ca des unzur kayfa nusarrifu ayat xoolal ni ñuy teqalee aaya yi la'allahum yafqahuun ngir ñoom ñu am ak dégg wa kazzaba bihi qawmuka wa huwa al-haqq sa xeet bi day méngaleen ko te moo damay dëgg de qul lastu alaykum bi wakil neel man day nekkuma koo xam ne maa leen di garanti di leen gàddu li kulli nabain mustaqar ñeel ne bépp xabaar fa nga xam ne fa la war a saxe ay la koy feeñal di ko dëggal wa sawfa taalamuun jeexal sa ngeen a xam wa ida raayta alladina yaxuuduuna fi ayatina heure boo gisee ñi nga xam ne ña ngay nekk di xuus ci sunu biir aaya yi fa a'rid anhum dum moo yul ci ñoom hatta yaxuudu fi hadisin xayri ba baa ñuy xuus di beneen wax bu bokkul ak moom wa imma yunsiyannaka sheytaan bu dee nag dalaa fàttaloo sheytaan fala taqud ba'da zikra bul toog mukk gannaaw ba nga fàttaliku ma al qawmi zalimin ànd ak xeet boo xam ne ay tolkat la ñu ni ngeen wax bokk suñu borom mu ni am na kattan indi mbugal mu jóge ci seen kaw na am mbokku jullit ana ñaata la ñu gis ci ñoo xam ne ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala alak na leen mel na xawmu huur gis ngeen nam leen def xawmu soola gis ngeen nam leen def xatta bu ñu delloo suñu jamono tey jii da ngay gis li ñuy tuddee première puissance du monde mooy États-Unis mbokk États-Unis am nañu protection bu ñu jàpp ne kenn mënulu leen dara protection yoo xam ne nii missile patriotique yoo xam ne nii bépp avion bu nar a dugg États-Unis daan ko intercepté jàpp ne ñam nañ politique waaye bisu yàlla nam yi mbir lu xew mooy ci biir États-Unis la yëkkatee ay avion yëkkat ko ba ca kaw ñoo dóor ko seen kaw plus de trois mille morts loo xam ne ñun ñëpp gis nañ ko loolee bokk dañuy gis ne muy nekk kattanu borom bi jënd waala am naa li jóge ci seen suuf moo gaa yi tremblement de terre bi jóge fële Turquie ndax yàggagoon na waaw yéen ñëpp gis ngeen la ca xew wala boobu la nga xam ne moo xewoon ci fii ci tsunami bi fi amoon nga xam ne benn ñetti minute daanaka xanaa bu ko mën a jëlee yem plus de trois cent mille morts suñu borom yàlla reye doole loolee mbokk dañuy gis ne kattan la goo xam ne ci kattanu yàlla la mu am nag loo xamante ni moom moo gën a tasaaroo li mu wax ne dama leen di yalbisakum ma nekk mbubb muy leen solal mooy melal leen ngeen nekk chia mooy farandoo ñii far fii ñii far fii xeex dox seen diggante mooy li ñuy tuddee guerre civile bokk ci lu gën a métti li am moom ngeen gis fële ci Syrie ba muy gis ca Bagdad ba muy gis ci Libye ba muy gis Afghanistan mooy ay doomi réew bokk réew bokk der bokk lépp ba pare wëlbatiku ci seen biir di rayante di rayante rayante boo xam ne ni mara di jàpp loolee mbokk ci napp yi gën a garaaw la bokk allahuma suñu borom yàlla natta woon na ko sahabatul kiram ci bay fitna ba ñu am ba ñu rey Ousmane garab ba ñu rey Ousmane la fitna tàbbi ci jullit yi allahuma lu dul ñoom saxaaba yi doon xeex ñoom ku nekk da doon xeex mu taxaw wiilan ci na moom daay xeex ci dëgg looloo tax ba ak jullit yow sa yoon du nekk di wax ci biir yooyee boo demee téere bi ñu doon jàng fi ci Sénégal muy risaale danaan wa yajibul imsaak ama shajara baynahum heure boo demee ba sa xel dem ci saxaaba yi lañ doon xeex yow da ngaa war a téye sa lammiñ ci loolu comme yàlla musul na la ba sa jaasi takku ca fexeel ba sa lammiñ bu ca takk loolu natt la bu leen yàlla nattoo woon ñoom ñëpp ñu jàpp ne ñu ngi ci dëkk waaye mbokk xamal ne it li yàlla wax ne yàlla bi sakum chia akay nekk musiba am réew jafali ko rawatina nag ñun suñu réew yu pauvre yi boo ko gis la boo demoon en Occident naam am nañ ay parti waaye tey demal dëkk mel ni États-Unis di dëkk bi di naan mu ëpp doole ci àdduna bi ñaata parti ngeen fay dégg du ñaar day les démocrates et les républicains doonte ne démocrates et républicains yëpp heure bu intérêt États-Unis taxawee fàtte nañ lépp lu leen lu leen lu leen doole la woon un peu partout ci grande puissance yi loolu la mais ñëwal nag ci dëkk africain yi néew doole yi Sénégal ñaata parti nga am trois cent trois cent et quelques parti trois cent et quelques parti bokk loolu naka lañ mën a avancer yal na yàlla yërëm suñu mag ba dégg toog daana wax lu amul bopp di du dox waaye lu bëri bopp it du dox di yaa ngi dégg bokk trois cent et quelques parti ah da ngay gis ne sama philosophe mooy rajo Fadul Gueye mu ne l'oppo- l'opposition puis sans cesse pour pour que le parti au pouvoir multiplie ses erreurs mu la ñu nekk opposition suñ sañoon bés bu nekk président def njëriñ boo xam ne day daaneel réew mi am déet loolu la ñuy la ñuy la ñuy yàq mooy président la échec mais gars yi président bu échecgee ah président bu échecgee kan moo ci loolu un président de la république mais kooku sëñ bi ñu lay garanti même bu daanoo dañ ko yoral salaire yoral ko di ko garde yoral ko logement kon bu amee échec kan moo échec mooy nit ñoo am échec looloo tax ba mbokk nañu xam ne loolu c'est des erreurs yéen ndaw ñi nar a jël relais bi ëllëg xam leen ne teqale ko musiba teqale ko musiba la du dur mu ko jàmm moo tax suñu borom ne bu dee am na ñaari kuréel kuréel yu xeex jóg leen defara seen diggante gis ngeen borom bi subhanahu wa taala nag mu ne xoolal ni may teqale samay aaya ngir nit ñi mën a comprendre mbokk yàlla dañ ko war a ragal yàlla def ñoo pénk moo ñu pénk ci kaw pénk ci suuf pénk ci suñu diggante li nga doon pénk ci suñu diggante te it loolu mi ngi noonu doomu aadama war ci bàyyi xel bu baax mu ne nag yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa xeet bi day weddi nañ la waaye li nga yor mooy dëgg te it mbokk doomu aadama daa soxla ñu koy encouragé rawatina boo dëkkee dëkk bu mel ne Sénégal li ngay dégg tey jaaxaan da ngay dem ba mujj nga jàpp ne waa man mbaa li ma nekk sax mooy dëgg yow mi sax ci alxuraan ak sunna bi nga nekk muy dëgg de yàlla wax ci alxuraan ak sunna loolu rek ngay dégg leneen lu dul moom lu mu siiw siiw lu mu bari bari wallahi bu dëgg lu safaanu alxuraan bu dëgg sa xeet yéen di nekk la lu ne ñu jiiñ la ko waaye li nga yor bu woon xaq loolu rek ngay dëgg gis nga yàlla waxul bu woon xaq dëgg la waaye dana loolu rek ngay dëgg nee leen nag man ñëw mu fi pour topp leen ba ngeen di jëfe digal yàlla sama war a gar mooy ma jottali leen kese lastu aleykum bi wakiil li ma leen xabaare nag ci muy déglu da ngeen mës a gis conséquence am li kulli nabain mustaqarr masalan bokkoon na ca suñu borom mu ne sa yuxzamul jamu wa yuwalluuna dubur ba ñekkati mag mu ne yonente bi gis nga kàttoor yi la sonal da nga mës a dàq ñu daw ne gannaaw keroog xare Badar ba te yonente bi rey juróom-ñaar fukk yeewtu juróom-ñaar fukk ña ca des fukk di daw ma nga leen topp ak jaaseem de naan sa yuxzamul jamu wa yuwalluuna dubur daal daw ba ne gannaaw comme na ko yàlla waxe woon li kulli nabain mustaqar loolu mooy ci biir àdduna biir àllaaxira yéen li kulli nabain mustaqar yow mi weddi sa wara gis da nga mas a jàkkaarloog sa wara yow mi weddi weddi bëggalu bàmmeel da nga mas a jàkkaarloog bëggalu bàmmeel sawfa taalamu borom boobu nag subhanahu wa taala ni soo gisee ñuy nekk di xuus ci suñuy aaya xuus mooy li nga wala fi waxe rek mooy ndox fees na fii ngay dem di xamoo ci dara romb di dem day gis borom oto boo xam ne day jàpp ni ndox mi ruur dem ba ci biir rek dugg ci pax kay ci xuus kon xamul fi muy teg tànkam ñooñu nga xam ne dañuy nattale rek di wax te ak bëri suñu rajo ak télévision yi tey ak bëri suñu jotaay dajaloo rek di wax yàlla ba mu ne sëñ diw ba sëñ diw ne yàlla ba ba sëñ nangam nangam wax yoo xam ne amul benn sësluwaay buñ ko mën a sës yaquuluuna fii ayaatina suñ borom mu ne wëlbatikul dum mooy leen bàyyi leen ba baa ngi wax beneen wax bu dul boobu bu la seytaane fàttaloo ba nga nekkoon ak ñoom it boo ko fàttalikoo gaawul jóg dem ñu ngi noonu bul toog mukk gannaaw ba nga fàttalikoo ànd ak ay tonga lu tax mbokk jullit suñu borom wax nañu ca lañ baas suratu nisa bi ñu génn innakum idan misluhum heure boo gisee ñuy jàngati aayey borom bi di bokkaale di shirk yow nga toog ak ñoom yaag ñoom a yem inna allaha jamiul munafiqina ja kafiruna wal munafiquna fi fi jahannama kafirina wal munafiqina fi jahannama jamia yàlla mu ne naafiq yeeg yéefar yi lay boole loolu mbokk da lay wan ni am na ay masla yu bëri am Sénégal da doy day woote biddaa parce que am na ñoo xam seen biddaa yéeg dina ba ne su la moom am yeneen la yow gëmoo ko de ñu koy jëf nag gëmuñu waaye dañ leen masla comme ñu dangaa bëgg bu bu ñuy booy nekk si ñu fekk si la nga dem toog ak ñoom ñuy wax yi ñuy wax di jàngate aayee borom bi yow nga toog ak ñoom lan la wayu ndawal bi sunna bi bëgg sa diine sell fexeel ba fooy dem na nga fay dem na am sa mbokk ku la woo day demal waaye bis boo toogee dégg ñuy wax loo xam ne nii ñoom yàlla la jógal dem pour toog di seetaan loolu tubaab bi li muy doy war doy war da nga kii na di bien constant am déet heure boo toogee ak nit ñuy wax réagiroo rek mooy li ñuy wax yow d'accord na ci loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee loolu bu la ci kenn yow maslaak nijaay ak baay ak kum mën a doon maadaama lañ fay daje di wax ak jalgati ay borom bi la bu la fa kenn yow contraire ba it noonu la ñu doon toogoog ñu baax li waaye boo toog toogal ak ñu baax yéen ñëpp dégg ngeen xadis bu siibu ci yonente bi alei salaam wax toogoog ñu baax mi ngi mel ne toogoog gaay bu départ ko imaamu may la wala nga jënd wala nga jël ci xet mu neex ban jotaay yu mel nii daan na yàlla nangul ñu ko yonente bi alei salaam nee na yàlla dina laaj malaaka yi wax sama jaam lu leen tax a toog ñu ne ah ñoom day sa gërëm rek moo leen tax a toog de ndax ñoom dañoo am sa gis déedéet waaw bu ñu ma gisoon nag ñu ne ah yàlla ñii day ni ñu la fekkee bu ñu la gisoon ah daan nañ daan nañ gën a góorgóorlu de mu ne waa ñoom lu ñu gën a bëgg mu ne ah yàlla dañuy àjjana la ñuy sàkk ah ndax dañoo ma sa gis àjjana déedéet bu ñu ko gisoon nag ah ñii day bu ñu ko gisoon nag gën a farlu ana lu ñu gën a ragal sa waral la ñuy gën a ragal yàlla mu ne ndax gis nañ ko mu ne déedéet bu ñu ko gisoon nag ah kon dañ gën a moytu mu ne maa ngi leen di seedeel ne ñooñu seen jotaay boobu jéggal naa leen yërëm naa leen danaa leen tàbbal aljanna danaa leen musal ci sawara yal na yàlla boole suñ jotaay bi malaaka yi na ko ah mais góor gi càmm day moom daa ñëwoon rek amoon lu mu doon ndax fekk ñu toog mu toogal ak ñoom mu ne boole leen ko ci ñooñu kuy nangoo toog ak ñoom doo texee na am am na ñoo xam ne jotaay yi mel ni xalaat duñ toog fi di ngeen noon xalaat duñ toog fi ah parce que jàpp nañ ne da ngay màbb seeni pas-pas da ngay da ngay da ngay wax seen seen seen gaaruwaale da nga xam ne ni moom lañ jënd ca dëppoo la sunna kon képp kuy nangoo toog ak ñu baax suñu borom yàlla mu ne boole leen ko ci ñoom ñi ngi noonu yal na yàlla baaxal ñu boole ñu ak ñu baax adduna ak àllaaxira
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بارك الله فيكم suñu borom jalla wa ala mu ni wa ma ala alladina yattaquun du nekk nag ca kaw ña nga xam ne dañoo ragal yàlla min xisaabihim min cheyin ca rek la gën na la rek la saay-saay soosu ci dara walakin zikra waaye loolu na nekk ak fàttali laallahum yattaquun ngir ñoom ñu nekk ñuy ragal yàlla wa zari lazina taxasu diinahum laiban wa lahwa bàyyi yéen ma ñi nga xam ne dañoo jël seen diine muy foof ak buukari ñu leen di yitteel kese wa garrathum alxayaatu dunia mu wor leen lii di dund ak àdduna bi wa zakkir bihi ay waaraatel ci alquran ji an tubsala nafsun bima kasabat ba baa muy mën a doon di fekk bakkan ay toxbasa di fekk bakkan te la fàgg woon laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi'un du ko ñeel gannaaw yàlla ku koy féetewoo wala ku koy ram wa in taadil kulla adl su bëggee jotu ci bépp jotu laa yuxasu minha kenn du ko nangul ca loolee ulaayika lazina ubsiru bima kasabu ñoo ne day mooy ñi nga xam ne nii fekk nañu leen mooy alku nañu rek ca lañu fàkk woon lahum sharabun min hamim dana leen ñeel am naan bu jóge ci hamim mooy fa tàngaayu ndox yëm romb na ko wa azabun alimun bima kaanu yakfurun ak mbugalum mu tar ci liñ nekkoon di ko weddi mi ngi noonu bokk suñu borom mu ne ñooñee nga xam ne dañuy jàngate aayay borom bi di xuus ci aayay yàlla yi ci ñaari mbir waxal yàlla lu yàlla waxul weddi la nga xam ne moom la yàlla wax mu ne du mooy ngeen leen du mooy gannaaw yowmal qiyaama duñ leen laaj lu taxoon ñoom ñuy def loolu duñ leen ko laaj lu taxoon ñoom ñuy def loolu waaye nag fàttali ga ngeen di fàttali loolee mën na doon mu jëriñ leen te mbokk xam leen ne ci gën a nekk noonu doomu aadama mooy ki ngay gis mu nekk ci musiba ay shirka ci bokkaale ba pare mu ko ciy dimbali wala ci encouragé waaye ka nga xam ne mooy farandoo doomu aadama dëgg-dëgg doo tere doomu aadama moom la jàpp noonu mooy képp ku lay tere shirk képp ku lay tere bidda suñu borom mu ne comporté wu leen ci seen i wax ak ci seen i jëf ngir ñoom ñu ragal yàlla te yëpp yàlla mooy jubal bu ko neex ma'ziratan ila rabbikum la'allahum wa la'allahum yattaqun ñu ngi noonu borom bi nag mu ne bàyyil ma ñi nga xam ne seen diina mooy foo ak buukari bokk suñu borom dana zor bàyyil la way julit xoolal koy àndal ak koo dul àndal commencé mooy yéeféer wala bu topp pewul diine am na ñoo xam ne seen àdduna yépp folo asolan boo demoon ci occidentaux yi lu ci bëri lu ñuy wax dañ naan àdduna ñetti mbir la trois heures mooy trois heures de travail trois heures de sommeil trois heures de loisir ndegam naan huit heures huit heures de travail huit heures de sommeil huit heures de loisir mooy da ngay liggéey juróom-ñetti heure nelaw juróom-ñetti heure foofu juróom-ñetti heure ba ëllëgati mbokk ku mel nii it nga xam ne moom jàpp ne ne dundam fii la yem àdduna fii la yem lu mu amul ci àdduna ñàkk na ko perte na moo tax bu demee bu gis na àdduna baaxutul ñu xam waaw yow mi gëm nag àdduna ak àllaaxira na war leen ma ko programme kon mun a bàyyil ma ko bàyyil ko ñaareel bi ñuy woote woon diini commencé woon ci yahud yi jaar ci restaurant yi ba tey ci turin am na ñoo xam ne lañ lan mooy seen diini mooy dajaloo tëgg fecc jaxase góor ak jigéen lekk cere yi naan kafe yi duggal tasaaru dem ne bi mbokk lii diine la war loolu mbokk suñu borom mu ne bàyyil ma ñu mel noonu ñoo xam ne seen diine foola ak bookara bàyyil ma ñu mel noonu ñi nga xam ne àdduna da leen a lor lu tax ba njëkkee woote daje bi benn nag lañ amoon te déwén sa am nañ fukk tey téeméer tey nag dundi nag la ñuy rey ak ñaari téeméeri giléem ñi nga noonu ñu jàpp ne ni adduna di yokkoon noonu la leen yàlla gërëmi xëratuhumul xayaatu dunia géej yaa ngi nii oto yaa ngi nii dara manquéwul mbokk loolu borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu ak war la balin bu ànd ak ñoom borom bi nag mu ne na ngay waaraate ci alquran zakkir bihi fa zakkir bil quran man yaqaafu waid fàttali leen kàddu borom bi fàttali leen alquran balaa bakkane bi ñëw doon te aji arku ngir lam fàkk woon ci àdduna te mbokk mi ngi noonu alquran dong nga ma mën a jàngi doomu aadama man ko delloo ci ngërëmal yàlla te bu keroogee da ngay gis ne doomu aadama yi du ñu am kenn ku leen di féetewoo comme nañ ko waxe woon bu tàbbee ci mbugal du am kenn ku ñemee ñëw ci yàlla naan ko yàlla baldu du yonent du malaaka boo ko allah axira ak ram mu am na fa ramm googu nag sànq nañu bari ci doomu aadama yi ramm am na laaxira kon man sama yaakaar ma Cheikh Ousmane dana ma ramm ñu ngi noonu ndax sama bàyyi bàyyam la yaakaaroon sama maam maamu la yaakaaroon kenn man Cheikh Seck mooy mooy ko may ramm mbokk yowmal qiyaama amul kuy ñëw ci yàlla nan ko bal diw man zal lazi yashfau indahu illa bi isni mooy aay bi gën a mag ci alquran ak yàlla mooy ayatul kursi ramm ko nan lay demee mooy ay taram yéen ñi def ci conférence yi xale yi jàng arab léeg-léeg nga dégg ñu ne waaw ah ki day tarif bi gis ngeen ni mu rafetee kàddu bi ñu koy jox Cheikh Ousmane ñu ngi woo Cheikh Ousmane mu joxal ko ko et kii soxna si ah ñu ngi woo soxna Fatima kaa joxal ko ko soxna Fatima bi muy ñëw ci daje bi xamul woon ne daan ko terale kaa joxe kado ramm it noonu lay demee yomal qiyaama suñu borom mooy xool ku ko neex ci ay jaamam mu tere la ko mu ñaan ko mu ramm ka yàlla jàpp ne kii kat ay njuumte nekkoon ci moom ñu ramm ko pour tàbbal ko àjjana amma ak yéeféer kenn du ko ramm ñu ngi noonu kenn du ko ramm moo tax borom bi mu ne ñoo ñi nga xam ne dañoo dee ñi dee rek yéeféer nag bu ñëwee duñu am wali wala chafia te lu ñu bëggoon a jotoo kenn du leen ko nangul te mooy leen doon def ci lu baax mbokk kenn ko dee yaale shirk ak kufru na fekk sarxe woon nga des milliards na fekk ne bokkoon nga ci Médecins Sans Frontières ah sauvé nga des millions ci doomu aadama yi lépp loo mënoon a def ci lu baax du la jëriñ dara ci kanamu yàlla. barab mu ne ñii day ñooy ñe alku ca lañ doon fakku la leen di xaar mooy sharab min hamim boo ko hamim mooy ndox ma yàlla di teeroo waa sawara mu mel ne bëteex bu ñu yël nga xam ne. buñ ko juboo seen karaw seen deru kanam lépp soodewu wadd ci kaw gis ngeen loolu la ñuy naan mu xott seen kod ya xotti seen bit seen butit ya taqatta ak am ahum gis ngeen xotti ci seen butit ya tuuru ca suuf borom bi nee na gannaaw ba mu ñeel leen ne mbugal mu tar bu bokkul ak xaliit lan moo ko waral mooy weddi gañ weddi war seen borom yal na yàlla musal ci ñu koy weddi
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير jazakumullahu xayra suñu borom jalla wa ala mu ne qul ana da'u min dunillah neel andax ñun daañu woo gannaaw yàlla maa la yanfauna wala yadurruna loo xam ne duñu jëriñ te duñu lor wa nuraddu ala aqaabina ñu delloo ñu ci suñu ndëggu ya baada id hadaana allah gannaaw ba ñu yàlla jubali kadi istahwathu shayatin nga mel ne koo xam ne da koo sànq seytaane ya fil ard ci benn suuf xayraana mu doon ko gëlëm lahu asxaabun yaduunahu ila alhudatina doonte ne ma nga am ay àndandoo yu koy wooti jub nan ko diggal ñu qul inna huda allahi huwa alhuda neen jubug yàlla day mooy ak jub wa umirna li nuslima li rabbil alamin te ñun de dañoo digal ñu jébbalul borom bi daafal yi wa an aqimu salaa te ngeen taxawal julli wattaquuhu te ngeen ragal ko wa huwa allazi ilayhi tuhsharuun te mooy ka nga xam ne ci moom lañ leen di dajale jëme yawmal qiyaama wa huwa allazi xalaqa as-samaawaati wal ard mooy ka nga xam ne moo bind asamaan yi ak suuf bil xaq ci dëgg wa yawma yaqulu kun fa yakun bis bu muy wax kun nekkal la muy wax day daal di nekk qawluhu lxaq waxam rek ay dëgg wa lahu lmulku yawma yunfaxu fi suur ñeel na ko nguur ga bis ba ñuy dëf te béjjeen ba aalimul xaybi wa shahaada mooy nga xam kumpa mooy xam lépp lu feeñ wa huwa alxakimu alxabir mooy ku xeere ñàkka ki ñàkk kumpatu lu mën a doon jalla wa ala bokk suñu borom day wax rek yow yeneen ci bi ngeen yéeféer yi ndax ñun daañu woo gannaaw yàlla lu ñu amalul njëriñ te mënuñoo teggeel ay lor te mbokku doomu aadama mooy def ci xelam ni am na keneen ku dul yàlla ku koy wërsëgal wala ku koy teggeel lor yaa ko def sa xel rek waaye wallahi mbokk loolu amul borom boobu subhanahu wa taala ni nee leen xanaa xamuñu ne bis buñ demee woo keneen ku dul yàlla égal dellu nañ ci kéeféer dañu yàlla musale woon te mbokk bi ngeen woon te lépp luñ mosoon a def yàlla dana ko màpp ñu mel ne koo xam ne seytaane da koo sànq mi ngi noonu ci suuf dan waaye nga dox ci désert seytaane réeral ko am na ñu ne jinne yi am na seytaane jinne yoo xam ne da ngay gis nit koo xam ne nii dafay beru bu beroo rek mën nañ ko feeñu xamal ne ko fii nga war a jaar fekk dañ koy sànq ala kulli xaal chia suñu borom nee cheytaan yi dana sànq doomu aadama su ko defee mu doon koo xam ne ni ko gërëm doonte ne bu ko ay mbokkam yi buñ koy woo naan ko diw yoon bi fii la moom day gërëm te di yaakaar naa am si ngeen gërëm waay gërëm ki gërëm côté day dooram mooy nekk côté càmmooñam asalan kii gërëm ni ñëwoon tey ne damaa bëgg a dem police dana ko fii ngay jaar pour moom da koy sànq ndax pour moom akabes moo féete fii police mu nga fële gis ngeen loolu kon mooy xayroon gërëm suñu borom subhanahu wa taala nag nee na ah xam leen ni kooku nga xam ne dafa mel noonu njëbug yàlla rek mooy jub te misaal rek la ci yàlla di di dóor mooy ki yaakaar leneen lu dul yàlla jalla wa ala di woo keneen ko dul yàlla moo kee seytaan yi réeram ñu gërëm ñoo yem day jàpp ne mi ngi ci njub fekk nekkoo ci dara borom boobu subhanahu wa taala nag ni njëbug yàlla mooy jub te dañ ñoo digal ni jébbalul yàlla kii borom bi daa ko nii bokk jébbalu rek wóor du yëpp bu nekk daa war a jébbal ku jébbaluwul rek alku nga waaye nag ci kan la ñuy jébbalu umir naa li muslima li muhammad laa li abubakar laa li jibril laa umir naa li muslima li rabbil alamin yàlla mu ne dama leen digal ngeen jébbalul borom bi daa ko nii te rek moom jàkkaarloo xaritam la ibrahim na ko aslim mu ne aslamtu li rabbil alamin jébbalul naa borom bi ndaa ko ni wassa biha ibrahima bani dénk ko mboolem kuy ñëw ci jawata bi ila yawmi din te waaye jébbalul leen li rabbil alamin gis ngeen loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax bañ gisee ki nga xam ne mooy Balqis laa leen di sama ba mu ñëwee ba Souleymane wan ko ay kawti Souleymane nga xam ne daa wala ñaar yonent yàlla la buur la ba mu demee ba am conviction wóor ba tëgul na jébbalu naa ci Souleymane de def na aslamtu maa Souleymane lillahi rabbil alamin maa ngi ànd ak Souleymane di jébbalul yàlla borom bi ndàppal donc lii mooy la nga xam ne moom la ñu yàlla sant borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni boo jébbaloo nag taxawal na julli te mooy baasu jébbalu gi waaye ku jébbalul diine yàlla ji lay baasam mooy taxawal julli taxawal julli ak julli bokkul de ak a bari ñuy julli soixante-dix ans ñu mosuñoo taxawal julli aqimu salaa mooy fexeel ba sàmm la nga xam ne mooy waxtu wa aqimu salaa fexeel ba sàmm làmb aqimu salaa jàngal na yeneen bi doon julli aqimu salaa mooy ànd ak toroxlu ga taxawal leen julli gannaaw ba wattaquuhu moytu leen bakkaar yi nga xam ne day alal day alagaati te xam ne lu mu yàgg-yàgg ci yàlla lañ leen di masa dajale jëmi mbokk bi ngeen wax lu mu yàgg yàgg ñun ñépp yàlla dinañ mos a dajale ci kanamam kan mooy yàlla kan lañ war a jébbalul mu ne mooy ki bind asamaan yi ak suuf yi dëgg boobu asamaan yaa ngi noonu nga xam ne la ko sunu borom yàlla subhanahu wa taala def wallahi yéeme na scientifique yi jommal na leen waxuma ko xamul dara ci science scientifique yooyu nga xam ne dañ lay wax des milliers de milliards ci ay galaxies galaxie bu nekk def des centaines de milliards ci ay biddiw biddiw yoo xam ne nii bu nekk ëpp na suñu suuf si kenn xamul ñaata yoon boo ko asamaan lu yéeme la ndax borom su subhanahu wa taala ba mu waxee ne fala uqsimu bi mawaqi'i nujum wa innahu la qasamun law ta'lamuna azim ñu waat ci la nga xam ne mooy wattu ay biddiw yi mu ne tey ak waata boog de bu doon xam ngeen waaye li nga noonu tey ñun li ñu xam tuuti ci science maa nga xamuñu woon un million ba lay na dañoo ëllëg yàlla ko xam yàlla mu ngi bind asamaan ak suuf borom bi mu ne jébbaloon leen ko mooy da nga xam ne heure bu mu bëggee dara dana ko amal rek mu am mbokk yàlla rek ko am heure bu bëggee nekkal ay jaama kun fa yakun heure bu bëggee alal ay nit kun fa yakun lu mu bëgg bind kun fa yakun waxamit mooy dëgg bis ba nga xam ne dana joxe ndigal ñu war ci ñu def ci mbokkali bokk na lu jullit war a gëm mooy as suur lan mooy suur yonent bi salaa sallam nee na benn béjjén la boo xam ne dafa ëmb asamaan yi ak suuf waaye béjjén bu yéeme na de mi ngi ko jox jaama bu ñu tuddee Israafil ñëw na ci riwaaya li ñu tuddee xamalatu arsh di ñeenti malaaka yi gàddu arsh kenn la ca moom moo gàddu suur boobu yonent bi sam nee ne seet na ko déglu yëpp mi ngi déglu arsh kañ la ko suñu borom di wax ay yëpp mu daal di ëf saxaaba yi tiit na ba yow yàlla yónni lu ñu def mu ne quulu xasbuna allahu wa ni'mal wakil mi nga noonu kon ñun yëpp nañu wax xasbuna allahu wa ni'mal wakil mi nga noonu mbokk loolu kon nga xam ne may am bis bu ñu ëffee ci suur bi nga xam ne waa asamaan ak suuf saa yëpp man fi samawaat man fi al ard illa ma sha allah ak ci gàttal ñëpp dañuy dee borom bi joxaat ko ndigal bu ëppoon ci ñëpp dégg su ma nafirna fiihi uxra fa ida hum qiyaamun yanzuru ñëpp dégg ñu tëb ci néeg bàyyi mag ñëpp dégg borom boobu nag nee na mooy ki xam lu nëbb mooy ki xam li feeñ loolu moo tax moo mën a atte ay jaamam ëllëg non non moom rek moo xam ne dëpp xam li feeñ te it mooy alxakim alxakim alxukmu da ciy dugg mooy kii atte waaye it mooy ki nga xam ne dogalam yëpp da koo teg ci xikma ñu ngi noonu yëpp xakim da ko yóbbaale te it mooy alxabir alxabir mooy ki nga xam ne la gën a nëbb te la nëbb dara roogum ko dara roogum ko jël ba ala mbokk bu mel nii la ñuy daje ci kanamam moo ñu nar a àtte yawmal qiyaama loolu tax ba yow tulit góor góor lool ni ngay rafetal sa bitti ci kanamu nit ñi rafetal sa biir sa diggante ak sa borom jàll wa ala ngir ëllëg heure bu lay atte atte na ci jéggalam ak yërmandeem yal na ñu yàlla jéggal ci yërëm ñu atte ñu ci jéggalam ak yërmandeem wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
ñaari question la bu laaj maanaam ki nga xam ne kii génnewul buurum koor ndax day tax dina tax maanaam koor koor day tere koor bi yëg wala pour mën koy ñëw gis des mooy tamit ba xam jullit am na droit ak defar am mu liggéey di ko jaay
tàmbali xaal xam naa ci jiital rek suñu mbokk Abdul Xaadir Jaar di yàlla dogalal ñu fii defal ñu yéen ci kaaf waaye dañ ko war sànq na ko ni yaar dafa faaf dañ ko war a yóbbu ngaa bu suba wala le Cheikh Ibrahima Khalil la woon ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla jéggal ko yal na yàlla yërëm ko mi ngi noonu am naa lu bu dee nii ci wàllu muurum koor ndax tey tee ca koor bi yéeg déedéet muurum koor du tee koor bi yéeg ñëwul daal ci ay riwaaye ne dana la faral rëcc rëcc yi nga defoon ci wax yu jege warul wax ak la nga waroon a xool ak nangam nangam waaye koor bi moom lay tax mu yéeg mooy wooroon nga na ko yàlla santaane ba ngay woor yàlla tax loolu moom koor nga dara yéeg wallahu subhanahu wa taala aalam bu dee ñaareel bi lan la wax ci am na guerre julli arme rek ndax yëpp am na droit di di jaay ak arme de guerre ala kulli xaal lépp loo xam ne nii arme la dañ koy jëfandikoo na doon comme arme mi ngi commencé ci baaka jaasi ba katantara lu mën a doon heure boo xamee ni nii yaa ko moom amoo droit di ko jaay lu dul koo xam ne dafay jëfandikoo ko baax su ko defee su dee na ñuy jënd si arme yi dañ koo jënd ngir défendre seen bopp waaye jënd ñu ko ngir toon kenn su boobaa jaay ko dana dagal waaye képp koo xam ne xam nga ne ab tooñkat la bu ñëwee xatta ab paaka amoo droit di ko ko jaay mi ngi noonu allahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ah ndax mën na am dañ naan mën na am mu tombeeg vendredi ban taxawaay lañ ci am mooy da nekk xéewal ci biir xéewal rek loolu rek la ca mën a wax su dee nit ñi imaam moom day taxawal la nga xam ne mooy aljuma am na nag riwaaye yu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na iid bu tombewoon ak aljuma daf ne taw kaw yi ñëwoon di julli si jarul woon jarul ngeen di ñëwaat di julli si waat it di julli si waat aljuma maadaama daje nañ julli gi ba borom xam-xam yi ñu bëri ci ñoom dañ naan it bu dee daa tombeeg aljuma yow nga dem julli ak imam it su boobaa aljuma di dootul farata soo demee dana nekk ngëneel waaye boo demul it loolu yi dootul nekk loo xam ne farata la ci sa kaw imam nag moom il faut que ñu taxawal aljuma wallahu subhanahu wa taala alam naam
ayo yi yàlla di wax waddu lahum mastataatum min quwwa naam léegi loolu est-ce que si njiitu jullit njiit boo xam ne dafa nekk si dëkk jullit est-ce que dina dagaan boobaa moom ginnaaw bi dëkk yéefar yi amee ay li ñuy wax comme arme nucléaire moom mu signé ay traité ne moom day arrêté dootul dootul def recherche nucléaire
ndax ab jullit li xew li ñuy occidentaux yi noote ndax loolu jaadu na donc xam ngeen ne occidentaux yi xam nga lu ñu def dañoo ñoom defaru ba njëkk am seen arme nucléaire daal dina nag nañuy signé bis nekk tey kenn dootu ko amati ndax loolu ak waadu fe la yow kay bu ñu bëggee kay ak jàmm am ci kaw suuf dañ naan décrété nañu ne mille neuf cent tel tel ñun ñëpp daan détudul suñu arme nucléaire léegi nag bu ko fi nar a amati ñu dal sa kaw xeex ak yow waaye ñoom dañoo seen arme nucléaire te yow ko denc ba pare ne nag bu kenn dootu ci fi amati ndax loolu réewu jullit di war nañ leen caatab la réewu jullit ñi waruñu leen waxu caatab waaye xam ngeen li xew ci réewu jullit ñi tey néew na ku ci taxaw mën a am opposition ak Occident ndax la nga xam ne nii ay yeneen i mbir yu gën a xóot yooyu la ala kulli xaal daal jaaduwul yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain